aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee yàlla sunu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi yeesalaa sunu pas-pas ci seex naa seex ahmadul xadim yaakaari jàmmi teeg ëllëg mbokk yi dellu si waat nañ fii ci Touba ci bis bu màgg bi bis bu rëy bi di safar di bis bi nga xamante ni ci la seexul xadim waxoon ni képp koo xamante ni sama mbég sa mbég la sant la ma ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bis boobu mbokk yi moo dellu si di suba di képp kuy ab jullit fépp waaye nekk rek sa yitte yëpp moo di ñëw Touba mbokk yi tey jii ànd ngeen ak seen mbokk seen xarit Mame Balla Gueye kennal Seexul Xaddim fii ci télévision bu mag bii di télévision bi nga xamante ni mooy télévision bu mag bi ci jumaay ji mag yi mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci bis bu rëy bii ànd ci yéen tamit ak mbokki taalibe yi nga xamante ni bàyyeeku nan fépp ci gox yi nga xamante ni euh, ñoo wër Sénégal ak ci biir réew mi ñëw fi nga xamante ni moo di Touba fas yéene diggale li nga xamante ni moom la sëriñ bi taalibe yi mu def ko muy santale ko yàlla sunu borom dinañ ci ànd ak soxna yeek yaay faal yeeg baay faal yi tey jii nag li ci ëpp solo mooy màggal gi suba la wante dëkk bi dafa fees dell képp ku nekk xam na ni tamit ndox mi bari na ci dëkk bi fépp foo jaar wante taalibe yi Serigne Touba yi yëguñu loolu ndax pas-pas bi ak bëgg gi ak gëm gi ak wóolu gi ak yaakaar Seexul Xaddim gi nga xamante ni ëpp ku ñëw rek sa yitte ak sa bëgg-bëgg mooy fas yéene santale yàlla sunu borom Serigne bi seen télévision télé bi nga xamante ni moom mooy télévision daayira Muxaddamatul Xidma di télévision bi jumaay juñ ñu ànd ak yéen ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo ñëw fas yéene màggale Serigne Touba màggalam gi. yow fan nga jóge man maa ngi jóge fu ñuy wax euh, Njakala goog sëñ Abdou Mbacke. da ngeen a ñëwoon tey jii ci màggal gi. dañoo ñëwoon si màggal gi. màggal yi nga daan màggal ak màggalu ren gi ban yëg-yëg nga ci am. ah yëpp moo neex moom wax dëgg si yàlla gu ñëw rek neex. waaw. gis ngeen ni ndox mi bari na. dëkk bi tamit dugg bi jafe na. wante gis nañ ni murid yi pas-pas bi àndal yéen fa ngeen jógee sori na lool wante nag ndox meeg taw bi teewu leen ngeen ñëw fa yéene liggéeyal si. waaw waaw ndax ah, sëñ bi jaral nañu ko ñun sëñ bi chaque jour rek lu mu woote rek dañ ciy dem barke Serigne Touba. ndeysaan far nga dal fii. man maa ngi dal de fii nii fu ñuy wax sëñ Xaadim Mbacke borom Njakala waaw. jërëjëf jërëjëf soxna si. maa ngi jógee dakaar nag. Dakar nga jógee fan ci Dakar. Grand Yoff. da ngaa waaw damaa ne woon séance la soxna yi am ndax liggéeyal Serigne tubaa bi góor yàlla yi pas-pas bi ñu ci am noonu la ci soxna yam ndax ba liggéey bi tàmbulee ba léegi ci jamonoy Serigne Modou Moustapha jumaay ji bi koy tabax. ba léegi pas-pas boobu la soxna yi amoon ni góor yàlla yi daan laxasaayoo daan yenu xeer ya ndokk di ko indi ci jumaa ji noonu la soxna yi daan laxasaayoo daan yenu xeer yi di indi ci jumaa ji tey jii tamit fépp fu góor yàlla jóge ànd nga ak soxna soo xamante ni jóge na foofa laxasaay am pas-pas ngir lan ñëw liggéeyal Serigne Touba boo demee ci dal yi tamit noonu nga leen fay fekk ñoo yor bernde yi foo mën a dem tamit noonu nga fay fekkee soxna yi pas-pas yi gis ngeen ndeysaan rang bi ni ni mu guddee naaj wi tàng na lool wante nag yëg rek maanaam mooy pas-pas bin am ci liggéeyal Serigne Touba kon yàlla na Serigne Touba mii fay yàlla na Serigne Touba fay ñëpp ci barkeb soxna jaara ji nga xamante ni waajuram tedd wa liggéey bi yëpp moom la moo taxoon Serigne Touba ni woon soxna jaara matta ndeyu ku ne wante képp ku ñëw gis yaay faali pas-pas bin am ak bëgg gin am ci liggéey Serigne Touba bi ngay xam ne ñoom ñii kat ñu ngi roy soxna jaara ca tànkami sell ya kon xam naa ni am na soxna yu ma taxawal muy mu xaddimatul xidma ñoom tamit ni ma waxe woon léegi rek liggéey ngay fekk soxna yi ca bale ba ca raxas ba ca fobeere ba foo dem soxna yee ña nga fa ànd di liggéeyal Serigne Touba ci lan li nga xamante ni rek mooy ngërëm li ñëpp di sàkku Baye Fall di ko sàkku jëwriñ di ko sàkku noonu la ko soxna yi sàkkoo soxna si maa ngi lay nuyu baax di la ziyaare yaa ngi ci rajo télévision jumaa ji di daayira Muxaddamatul Xidma ban pas-pas ngeen am ci yëg-yëg ji ngeen am ci liggéey bi nga xamante ni moom ngeen di moom ngeen di liggéeyal Serigne Touba ngeen di ay yaay Fall naaj wu tàngu lool ngeen mënoon a nekk ca dal ya ca kilim yu wante ngeen bàyyi lépp ngir liggéeyal Serigne Touba loolu nan ngeen ko mën a man lan ci mën a wax a sàkku ngërëm rek loolu lañ ci yéene. pas-pasu soxna yi mooy pas-pasu góor yàlla rek ngërëmul Serigne Touba rek moom la ñuy sàkku te Serigne bi ñimewul bor dafa euh, mi gis nga pas-pas bi mu di di am yal nañ yàlla sunu borom fayal Cheikh naa Cheikh Ahmadou ak yëg-yëg gi nga xamante am nañ ko ci màggal gi nga xamante mooy mooy a màggalu deux mille vingt deux tombeeg nawet bi nag ndox mi bari lool wante nag pas-pasu murid rek fexe nan ba ngacc ndox mépp ba ndox mi jeex wante yàlla suñu borom tawaat na biig teewul boo génnee gis nga ni góor yàlla yi di xuuse ci biir ndox bi li ko jar rek moo ko jar xaw ma Serigne Touba lu mu lebal yàlla sunu borom wante murid yi ñu ngi jiima lebal loolu Serigne Touba ndax lebar ko amuk fay loolu rek moo wóor te Serigne tubaa am nan fay yàlla na Serigne Touba boole fay. waa Casamance laa ñëwee sëriñ sama sëriñ bi alaaj Moustapha Mbacke dafa nelaw dafa liggéey ba wàcc waaw moo tax ma ñëw mhm. si ziare leen mhm. doo moom bu mu jëlee der dafa liggéey rek mu wàcc mhm. waaw papam papam moom moo di dinde ku ah. moo maam Senta Mbacke moo ko bi mu ñëwee fii maam Senta bi mu ñëwee bi mu ñëwee fii moo ko jorakom moom maam Cheikh Anta Mbacké moo jur sëñ Moustapha Moustapha Caytu Moustapha Caytu moo jur moo moo moo moo jàngal su ciin su ma nijaay alaajeen saku jaabi ak ab bii bu kol yi imam bay la fii la ñu jànge ak Serigne Sané fii la ñu jànge moom moom ma andi ñoom ñoom ma andi depuis 98 pour ma ñëw xam fi fekke Serigne Serigne a Caytu mu ngi fi man Ibrahima Sita ji bala tudd bay la ndeysaan yéen a ngi jóge yéen a ngi jóge ba Casamance bay la Ziguinchor ndeysaan di ay joola seen i waajur wa seex seex sa euh, euh, maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan moo ko jàngal moom mii ndeysaan di taalibeem Cheikh Moustapha Coytu ndeysaan ban yëg-yëg nga am ci màggal gi. Oh, kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax parce que daal sama yaram daw na sama yaram daw na bu ma demee ba kër gi dalal nañu ma dalal bu baax waaw ale bu ñu ma gisee ñu ne ah suñu papa ngi nii parce que seen seen papa la ñu ma tuddeel waaw lan ngay wax sa mbokku Casamance yi mbokku Joola yi nga xamante ne ñu ngi. Joola yi dinaa leen wax ne ñu góorgóorlu ñu ñëw ñu ñëw seet Touba waaw jaajëf waay. jërëjëf. maam maam mu Serigne Ceytu moom bi ma ñëw en 98 mu ne ñun suñ suñu maam yi ñoo liggéey ñu ñëw rek. waaw moo barke yi. waaw moo tax lii am moo tax mu ne ñu ñëw fii. ku liggéey ku liggéeyal Serigne Touba ma fay la. si suma na la waaw. man Ibrahima Djiba ñu ngi jógee ñu ngi ñu ngi jógee ba Casamance Ziguinchor ndeysaan di ay Joola dégg nga ndeysaan taarix bi mu ñu diggante seen waajur ya ak maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan nee na barke boobu ñoom moom la ñuy dund kon yàlla na yàlla suñu borom fayal fële ca Casamance euh, xeex ba fa nekk bi ñoo naag lépp jafe-jafe dafa nekk yàlla ko yàlla suñu borom safara ci barke màggal gi euh, papa kaddu yu mujj damaa bëgg na nga lakkal nga lakkal ma Joola ci euh, mbokki Joola. nonkati bin joona em tekan poox ku felo ku baje juyeey xam nga ma ngi jóge foofu sama mbokki tey ñoom ñu ngi ci faro bi di béy moo tax man dama jóge foofu ma ñëw ma ngi leen di ñaanaal ñoom ta lu ñu def ci yàlla na barkeel waaw waagee ba ca barabu sëñ bu mag ba ñaanal leen fa jàmm ak tawfeex ak taysir yàlla guddal fan yi bu wér a wér a wér am momadiri ndeku o a jaalom taate naɗo illontade touba a joga sérin sérin touba sérin touba nano pani seni attiyo mam chanta mbake wa jangal mi momo deri nde ko jaabi momo deri nde ko jaabi nana ɓaj ma ñoolo alaji en tas ko jaabi na seno a ñoolo mam monsieur moustapha ceytu mo jangal alaji en sa ko jaabi ɗi alaji imam abibou koli on mbayla ɗi sérin sane ousmane ko jaabi on ziguinchor ñoom fii la ñu jànge alqouran moom seen tànk boobu la ñu topp waaw monu riɓe ne ñaaɓe tate jërëjëf jërë ngeen jëf yal na yàlla sunu borom fay leen ci barkab Seexul Xaddiim ndeysaan sunu baay yu tedd yooyu ñoom ñu ngi jóge ba Casamance leen ñuy wax rek Sénégal fu gën a sori ci Sénégal nit ñaa ngi fay bàyyi ko di ñëw ci màggalu sëriñ Touba gi ndax màggal gi teg day màggal goo xamante ni la sëñ bi waxoon rek taw feexi kese la képp koo xamante ni teg nga fi sa tànk taw feex rek nga fi jële moo taxit fépp fu waay nekk yaa ngay bàbbeeku léegi laay jokkoog sunu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi jóge ba Mali ñuy jóge Euh, Guinée Conakry fépp rek ña ngi fa jóge def ay biis rawatina suñu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi jóge ba Côte d'Ivoire bu ñu waxee Côte d'Ivoire tamit dañuy xam ne Grand Bassam ma nga fa di taarix ci yoonu murit di jaar gi nga xamante ni Serigne Touba jaar na fa foofu yëpp mbokki taalibe ñu ngi fay jóge di ñëw di màggal si ngir jëmmi Serigne Touba bu avion yi tamit foo mën a dem ci aéroport yi boo demee bi avion yaa ngi wàññeeku mbooloo maa ngi fees dell ñëpp rek wuy si woote bi nga xamante ni moom la Serigne Touba woote ni nañ ko sant la yàlla sunu yàlla sunu borom fayal Cheikh naa Cheikh Ahmadul Khadim. waaw mbokk di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare bu ngeen gisee rang bi ndeysaan mooy rang bi nga xamante ni moo jëm ci barabu sëñ bu mag bi euh, sunu yaay yi gis nga leen li naaj wi tàng tàng rang na rang bu ba si yaay booy maa ngi leen di baax di ziar. maa ngi leen di fay di leen ziar. sama yaay fan nga jógee ñëw màggal si. man maa nga jógee ba Ndar. ba Ndar. Mhm. yaay Ndar ak la. ah sori na lool. ba lu la jaral nga jógee ndar ak naaju tàng weeg nawet bi yëpp. lu baax a jar rek. Mbàkke bàllaay sa kenn mënu koo fay. dafa dimbali àdduna waxuma la jaam mais àdduna la dimbali. kon mu war noo jaral lu mu sore sore. ñu ñëw fii màggal bësam bi. wallaay. santale ko yàlla sunu. santale ko yàlla sunu borom. wax dëgg yàlla màggalu ren màggalu ren gi lan nga ci yëg. Ah, xanaa taw féex rek. taw féex rek macha allah. ndox mi ndox na trop. Ah, xéewal la rek. xéewalu Serigne Touba rek la. sew xéewalu Serigne Touba rek la ñuy sant rek. di ñaan yàlla nañ ko waa dëwën yu bëree bëree bëree bëri kenn bañ manqué. daraja yonent beeg barke Xaadimu Mustafa. <laughs> jërëjëf sunu yaay eh, sama soxna si naa def. nga jógee yow. man maa ngi jógee Dakar. fan ci Dakar. ah Grand Yoff. Grand Yoff. waaw ñoo fas yéenee màggal si. màggal bi. ah bëri <laughs> ndeysaan bëri rek nga ci yëg. <laughs> ku jógee ba ku jógee ba Grand Yoff ñu ngi màggalee Serigne màggal gi ak nawet beeg ku nekk xam na ni yoon wi ni mu naqaree. waaw ah, sant bu baax bee ñu ko jaral rek. ndeysaan sëñ bee ñu ko jaral wante nag ko ci. laa jóge. fan si Dakar. parcelle. Parcelles Assainies. waaw ndeysaan yaay euh, Dakar sori na lool de. sori na kañ la jaral nga bàyyi yitte yëpp ñëw ci bés bu mag bi. sëñ Touba rek moo nu ko jaral ndax la mu dajoon mënuñu koo daj. la mu wuti woon mënuñu koo wuti. kon bu ko wutee ba andil ñu ko ñu ñëw rek sàkku ci moom ak ñaan. looloo ñu fi andi. sàkku ñaan rek bu ngeen demee ca barabu sëñ bu mag ba ñaan leen fa soxla yëpp. ñaanal fa sunu njaboot ñaanal fa sunu lépp. te luñ fi ñaan yan nañ ko bokk ak yéen. amiin barke Serigne Touba ndeysaan ndeysaan sunu yaay kàddu. xanaa kon Casamance nga jóge fa Kaaw Casamance. Casamance ba Kaaw Sédhiou mm-hmm. nga noo lakkal tuuti Joola. sa mbokki ah. Joola yi nii dégg. soose. soose soose soose. ñu tuuti soose mbokki mbokki soose yi ni déglu nga xamante ni yaa ngi jóge ba Casamance ñëw ci màggal gi lan ngay wax sa mbokk ñu lay déglu. Mm. yo naata makkaloo la la. bee maa bee la jaar bii ñëw luŋu la. ala o mari hinanto silolu ñumanata kayra kono alma be murukula kayra ba kono ala ni sirin tuba na ala wali ya fan hormo kam me yen sindi nan jang ala o mari hinanto o duwa alma jabilan ni baadi misilmediŋol bee ande rasur fan horomodo ndol bonnam pakaw casamance a sediore son waaw ah. Ah. ndeysaan jërëjëf moom tamit mu ngi jóge ba Casamance ca Pakaaw nit nga foo mën a nekk rek sa xel day dem ci Touba gis nga sunu yaay yi ndeysaan lum sori sori maanaam da koy jaral ngir lan ñëw ci bis bu màgg bii rek yal nañu yàlla sunu borom fayal seex naa Cheikhul Khadim sama yaay. waaw dara loolu lañ nekk ak pour ngir njaboot gi ñuy dangaan ci Sëñ Tuubaa da ko ñaan suñu jaaxle yàlla teggil ñu ko suñu yéede di yàlla teggil ñu ko te may ñu xel mu dal te may ñu jaamu gën ndax te mën na xam kàttan da ñëw fii te gën naa suñ bakkan yàlla ñu yaakaar léegi sëñ Tuubaa dalal ñu ci baaxu yónnante bi ki nga xam ne liñ man reen yàlla nañ ko ëpp di win lépp lu fi ku fi feebar yàlla na suñu borom faj xaaja yi ubbi bunte xiwal yaara bi nawet bi ñu teem bu ne yàlla nañ ko bokk àggal ko te barkeel ko yaara bi di jaay Moustapha Ah, jërëjëf euh, sa mbokki taalibe yi nga xamante ne ñu ngi teewlu seen télévision Muxaddamatul Xidma fii ci jumaa ji gis nga ndeysaan ñu ngi ci rang bi nga xamante ni fi la soxna yi nekk euh, di dugg di ziyaare barabu sëñ bu mag bi léegi rek gis nga ñu dëkk soxna yi sunu micro ñii ñu nga jóge ba Casamance ñii ñu ngi jóge ba Ndakaaru ñii ñu nga jóge ba fu nekk ci àdduna bi lépp rek liñ ko waxee léegi rek am yaakaar ci li leen Serigne Touba di dik muy lan ajjanay ëllëg te muy lu wér loo xamante ni ku ma liggéeyal yàlla sunu borom fay la képp ku ma bëgg yàlla sunu borom fay la lu mu lay fayee muy àjjana waxul na góor waxul jigéen képp koo xamante ni sopp nga ma di ma liggéeyal yàlla sunu borom dana la fay képp ku ñëw sama bis bi sant le ma yàlla sunu borom yàlla sunu borom dana fay moo taxit fépp fu nekk rek waaye mu ngi fay jóge gis nga ndeysaan sunu yaay yi soxna seen jël léegi nee na dafa tawat wante nag dafa bëgg a ñëw ci barabu sëñ bu mag bi ñaan yàlla sunu borom teggi tawatam yàlla na ko yàlla sunu borom teggi kon mbokk yi màggal gi mi ngi nii suba la gi dell gis nga jumaay ji daanaka kenn xaju fi wante nag Serigne Touba mel noonu ndax lim liggéeyal yàlla sunu borom kenn mësu koo liggéey lim jëfal rasulullaay kenn mësu koo jëf moo tax yàlla sunu borom dana ko fay lu mu fayul kenn xol yi la ko yàlla sunu borom fay moo tax waxkat yi nan noppalu diingatkat yi nan noppalu lii day gën a màgg di gën a rëy di leen gën a yéem di leen gën a jaaxal ndax Serigne Touba mooy kéemtaan yàllaa ko def yàllaa ko yàllaa ko may loolu du lu luy liggéey lu yàlla sunu borom di maye la Serigne Touba la soob yàlla sunu borom may ko ko yal na yàlla sunu borom fayal Cheikh naa Cheikh Ahmadul Khadim wa salaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulillahi rabbil alamin sewota baake bi sewole bi jang parce que Serigne Touba kuwo duniya bee le wiltala mo bee le wiltala mo mi yalanko ala faani sayintema ay sanji jali jali si hani kabi wala kuwo ka kete isalan toñale biji parce que toñate kuwo min to abuka me toñate feŋo fenne to abuka me kal konton kal tentu kal jeyi ka gouvernement o konton ka ɗokulal konton milliard long i nata jam pour que mooli yitandi duniya la nde ɓota casamance le sedio département o mbotawol to commune de bambali mbotawol to wuje samini village o to mbotawol to kal konton kal tentu kal jeyi ka duwali fo kayro fo laftala sa sabati banko kan mais mbeɗamin jam fawde ninnamol fittañomale ninnamol fittañomale par ce que mi yen sammana ga konton lon ɓari ma to lon e ka fayde sirin e ñaadi keɓe atele naati nan kaɓonan guindir wo silla alhamdulillah sa mbeɗami a hen kille na portable o ɗi sambida minna ma nyosorno tenga fale nka mbenyi jima jima bundala sirim falula bunda ni jimo tema bari han kabi meje mo lolto da kal konton aw aw kal konton kal tentu kal jey kaduali magi len ni nuyu dilen sante dilen gërem alhamdullilah rabbil alamin a kontan man sirim man sirim murid murid la murid sadik la dama jabul ki ke murtala mom la jabul te alhamdullilah rabbil alamin be legi ah toujours maa ngi ñëwoon fii mais xam nga ne adduna kay day toujours day day sensé waaw changement bi rek moo tax ma taxaw fii. ndeysaan maa ngi sant di gërëm ban ban rajo la ñu. ah alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin te léegi jumaa ji nuyu naa leen nuyu naa leen sant naa leen Landing Sagna mooy sama tur ah, Landing Sagna mooy turam Sagna Landing Sagna ndeysaan moom tamit jóge ba Casamance sunu baay bi ndeysaan Bambali di taalibe Cheikh Mourtada Mbacké ndeysaan kon dafa mel ni ban jëlee de raportage ba léegi lu ci ëpp maanaam ñu jóge Casamance maanaam bari nañ ci lool mu war ni tamit Serigne Touba moom moo mel noonu moo nekk fépp mooy fépp te mooy lépp tamit mooy ñëpp wante nag suñ mbokki euh, joolaa yi ak soose yi maanaam màggal si nan bu baax a baax a baax yëg nañ ko ci màggal gi yàlla na ne yàlla suñ borom fay def ci Casamance ak li ko wër lépp jàmm ci barkeb Seexul Xadim jërëjëf jërëjëf saa baay bàyyee ko ñëw si màggalu sëriñ Touba bi ndax sëñ Touba moom kenn amul fayam waaw amuñu fayam de waaw siyaare nga barabu sëriñ bi waa siyaare nañ bu baax a baax a baax lan nga yëg lan nga yëg Euh, xol bu fees xol bu tooy rek laa yëg li may yëg man rek a ko xam na Serigne Touba daal kenn amul fayam dañ ko naan jërëjëfe rek sëriñ yàgg nga yàgg ngay màggal si waa ça fait trois maa ngi màggal si màggal yi jàll ak màggalu ren gi nan nga ko jàll ah, màggalu ren gi moom macha allah am na am na kii daal ni ñu koy xati am na organisation daal waaw euh, am na organisation yàgg naa nag chaque jour dama daan bëgg di màggal si mais trois trois ans yi moom moom woo na ma moom chaque année moom damay sawar ñëw màggal si. ñëpp ñëpp ñëpp ñëw ndax sëñ Touba kenn amul fayam te foo toog day mel ne sa xol bi si boppam mooy laaj pour dem waaw loolu nag moo ñu ko liggéeyal ba tax na mu moom suñu xol bi dañ ko naan jërëjëf sëriñ Touba. kontaan nañ suñu xol yi fees nañ te yaakaar naa lépp lu fi nit ñaan rek yal na nangu si barki sëñ Touba. waaw ñaan nga soxla yi sëñ bi. ñaan naa ko ñaan naa soxla yi. lan nga ñaan sëñ bi. ñaan naa ko borom kër. ñaan ko wér gu yaram. xéewal gu yaatoo yaato yaato yaatoo di ko ñaanal li may sumb nii yal na sotti waaw te yaakaar naa dina ko def waa fii moom ku fi ñëw loo fi ñaan moom di ko nangu incha allah ndax sëñ Touba moom euh, dafa njabootee ñëpp te nee na la tàllala samay loxo ma ñaan la nga ma may la li nga bëgg kon nag ñun ñëpp nañ tàllal suñu loxo yaakaar ne lépp ñu fi ut si rek ba tax na ñu ñëw ko dinañ dinañ ko am ñun tamit nag ñu ñaanal ka ndax moom ñaan la soxla waaw waaw ndeysaan jafe-jafe yi bari na ku nekk xam na ni tamit ndeysaan ndaw ñi soxla nañ liggéey soxna yi soxla nañu borom kër projet yi bari na tawat yi bari na feebar yi bari na képp ku sukk ci kanamu sëñ bi tamit maanaam say jafe-jafe say tawat rek li Seex Abdou Lahad waxoon ni nit mosu fee ñëw ñaan ma ëllëg tey rek te xam na ni ëllëg moom sotti na ba pare sëñ bi defar na lépp li des mooy tey tey nag dañuy ñaan rek yàlla suñu borom barke lépp yàlla na sëriñ bi saafara lépp ci barkeb Seexul Xaddim jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñu ngi teewlu seen télévision bu mag bi di télévision mu xaddimatul xidma bu jumaa ju mag ji jërë ngeen jëf